li si yéenekaay yi ak Mouhamadou Biteye dal ak jàmm inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Abdou Elinkine Diatta mi taboon boppam secrétaire général FPI Casamance yi day génn na àdduna la quotidien yéenekaay nañu dañu ko boom ca dëkkam di mu lomp day la ñu ko fekk nag ci benn xew rek daal di koy tifaare ay sox journal bi nañu du moom rek nag moom moo ci ñàkk bakkanam am na ci yeneen ñaari doomu aadama yoo xam ne faatu nañ ci vox populi nañu reyin gu ñaaw nag la ñu ko rey moom Abdou Elinkine Diatta ñoo leen fa ñuy amalee seen ñu daal di leen tifaare ay balu jegeñaaleem lañu moom Abdou Elinkine Diatta muy Bakary Vieux Diatta ak kii de Alpha Coly Moussa mi jiite mbootaay gi dajale nag cadre waa Casamance yi rek ne faat gi ñu faat Abdou Elinkine Diatta day journal bi na a ñu bokk na ci rek limu wonon ginaaw ginnaaw fi puy Casamance di dox jam ak rek limu tabone bopam secrétaire général bu MFDC wal fajri yene kay ni wa MFDC day ñak nañu kenn nak ku mag dal ci seen nit muy Abdou Elinkine Diata mi ñu dembu ci ca Mulomp di dekkam li ñu fan yi day di ciowal nak ñettelu mandat bi ana lan mo wara rek sal ngaare lam toro burge dene pat pataral waxu ci ben yoon ñogu sar xam xam match jëm ci walu charte rew na ci wal fajri yene kay boy wax rek da ngay wax nak ci lu mëna nek mba rek lo yaakar ne mënu na waaye mandat Macky Sall moom mënta nek mukk bu ñu rek ci charte rew mi defaroon janvier 2001 ba noppi yeesalaat ko ci atum ndekat foofu li ci charte mi wax day dafa leex nañ te moom mooy benn njiit Sénégal rek du tegale mukk ñetti mandat ñaar dong ci ngay yem njoogu saar ci ne daal waaye coow li daa mel rek waa nguur gi ci boppam dañoo nag am yéenay rek weñ loxoy juróom-ñaari sage nekk ci conseil constitutionnel Jean Charles Biagui di jàngalekat ca fac droit ne daal waa nguur gi ci boppam dañoo bëgg Manda Alioune Tine njiitu Afrique Jom di dankaf rek sous région bi ngir nak ñu tek ci souf rek mbirul ñettelu mandat ndekat nee na mën na indi ñakum kaaraange ci koy te dara jaru ko fi muy nak ca Guinée di ci réewum Sénégal Sénégal ambassadeur France bu bes bi fi nek day le soleil yéen kay nañu Philippe Lalliot lay wuyo waxtaan wu yaatu nak le sunu natango ya xam bay sekk ak mom Philippe Lalliot ne ko Sénégal ak France day ni seen diggante bel ni ben la fi te dafa xoot ndax nak dafa yag te lu yag deug la li deug ci soxna Aïda Diallo ci dundam observateur def na ci ab gëstu bu yaatu nak sunal bi ne Aïda Yaram Diallo moom mooy turam dëgg nag toll ci ñeent fukki at nekkoon ñetteelu soxna Serigne Béthio Thioune radiyallahu taala anhu mu defoon ko rek jëwriñ universel waaye nag ci ndawam day moom soxna si kenn dàqu woon a jaay crème glace ak rek beñe ca Fass bi nañu ku ñafe fam dëgg la nag amoon na jëkkër sax di sëy ca janatu nekkoon nag taalibe cheikh bi bi mu tasee nag ci la ñibbi Ndakaaru laata rek cheikh bi di ko denc mu am ak moom bal ci benn journal bi nañu na Liverpool defoon daaw rek ci final Ligue des champions noonu la defaat ren ji ci raw gàddu ca Angleterre ñoom waa Tottenham Mbappé ak Icardi stade yéen kaay nañu démb day yëngal nañu stade bu Paris kenn ku ci nekk rek ñaari bit nga dugal ci camp Marseille jongante bi nag mujj ci rek ci ñeenti bal ci dara ñeenti bal ci benn stade yéen kaay nañu moom la gayndeek Sénégal yu ndaw rek duma waa États-Unis moom moo leen merloo ku ne di kaas nag ci ñi nga xamante ni daal yoon wi dafa nangu seen kër mbaa rek mu nangu seen i place euh, waa Liberté 6 dañ ne ni gars yi bëgg a doxalee ak ñoom day dafa mel rek dañ leen a jàppee nag ñu tekkiwul dara waa géej waaye ne ñoom day duñ ci boole benn wax ndax nag duñu nangoo doon mbalit ba ñu leen di buubee nu leen neex di leen tuuri fa leen neex